ñu ngi leen di sant bu baax tey moom euh, dañu ñëwoon ziar si xalif général sëñ Muntaxa Mbàkke fi yàgg te wér ndax dañu toog diir nekkoon bitim réew boo ñëwee nag da ngay ñëw seet si sëriñ bi wax ko li nga fa nekkee woon parce que bi may dem dama fi jaar mu ñaanal ma ma dem si jàmm ñëwaat si jàmm bi ma ñëwee euh, sant ko gërëm ko ci taxawaayam ci mbënn mi taxawaayam ci mbas mi taxawaayam ci coono yëpp ak surtout yëngu-yëngu yi amoon ci réew mi ah ci mois de mars taxawaay bi mu ci def wane ne loxoom ah, bu ko tegee ci réew mi rek jàmm am ne ko mu ñaanal jàmm réew mi ñaanal ko naataange ñaanal nit ñi coono yi ñu nekkee mu wàññeeku loolu moo taxoon ñu ñëw fi ñu ngi jublu si ci màggal bi dinañ fi dellusi pour loolu waaye nag aussi di sant bu baax ci liggéey bi muy def surtout euh, mbiru université bi mu nekk lu ko soxal lu ñu soxal aussi ci suñu wàllu programme ñu ñëw nag ànd ak suñu délégation yëpp ñëw euh, waxtaan ak moom mu ñaanal ñu bu baax teeruñu euh, comme ni mu ko daan defee. waaw loolu yëpp ñu ngi ci ñun bokk nañu ci coalition Yewwi Askan Wi waxtaan nañu ba jiboo ba tëral charte yi ñu war a tëral yëpp pour jublu ci élection yi ñaanal nañ ko ñaan ñaan nañ ko aussi mu ñaanal ñu ci lépp lu ñu jublu yàlla def ci jàmm mu nekk ndamu réew mi ah fi ñu nekk nag mooy fi ñu tànn nekk am na ñeneen ñu nekk feneen eh, waaye terewul nit ñi mën a waxtaan pour que bu élection yi jotee eh, ñu mën a fexe ba gox yi ñi ko yelloo yore ko pour que population yi seen situation gëna a amélioré ñun Grand Yoff fa la ñu nekk soxe ko fa fas nañu yéene euh, song liggéey bi pour jël mairie bi sunu parti nangu na ko ñun ci sunu bopp nangu nañ ko euh, ñu ko yeggee waa coalition bi ñu waxtaanee ko jaarale ko ci sart yi di ñaan yàlla ñëpp nangu ko waa Grand Yoff yëpp ak fu ñu munti bokk. ñu xam ne euh, dañu war a lu jàppante pour defar ko. xam nga réew bu tolloo foo xam ne dafa bare li ñuy wax trafic maanaam luubal luubal dootul bàyyi dara mu ngi mel ni guro gu sankar rek sankar gi day gën di avancé loolu moo ñu dal luubal bi nag bu nekkee ci réew. Euh, ba dem ba laal institution yi nga xam ne ñooy représenter peuple bi ñu xam ne nag daj na kàpp luubal nag bu dajee kàpp li ci war mooy faj te li koy faj mooy programme politique ñu war a fexe ba ku sa loxo setul doo laal lu ñëpp bokk parce que lu ñëpp bokk ah ñëpp ci war a jot waaw lépp lu ñu teg ne yoon bi nii la war a def ñii koy teg yoon bi ñoo war a fexe ba ñëpp jaar ci bu dee passeport diplomatique ni ñu koy joxee loi bi daf ko bind ñu bind ko ci ay décret ñi ko bind ba voté ko bu dee ñoom seen bopp ñoom ñoo koy jalgati ñun ñëpp dañu jaaxle. Mhm. kon nag yeewoo jaaxle waaye am espoir aussi parce que boo yeewoo jaaxle ñëw janoo ak sëñ Muntaxa ci dal bi danoo janoo ak sëñ Muntaxa ci teey bi janoog moom ci bëgg réew mi ak euh, li mu représenté ci Serigne Touba. dañuy am espoir kon nag dañuy ñaan léegi nag état bi na jël responsabilité lépp lu ñu war a lijjanti rek ñu lijjanti ko mu leer moo tax vraiment lu métti la gis luubal dem ba tollu ci institution yi ba mu fës nii te du tey du guléet yàgg ngeen ko gis gis ngeen ko fi ci ay faux billets bu ñu nee ba am ay faux am foo passeport ah am faux foo foo développement foo chiffre ah ci ci ci ci emploi foo chiffre ci pauvreté lépp loo xam ne dañ koy def ah mu nekk mu mu wute ak réalité bi kon nag ñun dañuy war a jaaxle te nit bu jaaxle nag day jóg taxaw moo tax ñu ne jóg leen jéngu tabax réew